الحمد لله الحمد لله الذي جعل الحمد توجيه الحمد لله الرجيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنار من الذي يستحيي على الذي يقدم فهو الصلاة وخير التسليم على سيد العرب والأجر والجن والإنس محمد بن عبد الله الذي أفضل الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين السادة الوراء وأصحابه نجوم الهدى kon nag mbokk jullit yi ñu ko daan defe rek damay fàttali ci fàttali sama bopp wax lépp luy beesal xol di jëlee ci nit ki ci boroomam ak ci ëllëgam dara nga ko caa xeet li koy dëgër dëgër ci buñ ko wanee boroom dana ko naw naka noonu tàggal ji noonu la demee jullit nag zakirin saati zikra sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni ñu ne ñax googu nga xam ne sax na ci suuf waaye car wi ak bant bi mu ngi ci jaww ji ngelaw li di ko upp ñu sax ngelaw li tëral ko ba mu jege suuf bàyyi ko mu taxaw loolu ngelaw ñëwee ci suuf kon jullit noonu la demee ndax jullit doomu aadama dañ ko indi ci àdduna mu bokk ak àdduna bi bokk ak suuf si bokk ak li ci lépp suuf si di yëngu ak yëngu mu ko garaam ak yëram ak tawatam yitteem ak li muy yëpp yëpp gannaaw yàlla aju ci yooyu di ko wër muy jant muy weer muy ngelaw muy ndox muy lu mu doon jëm si rek ñu sant ko mu xeex bëri góorgóorlu ak li koy yàq li dox diggante bi benn ngëm day yokk di wàññi ko ngëm di koy wàññi tukki bu xuusee ci àdduna bi itteem yépp nekk ci li muy sàkk li muy bëgg li muy digaaleel ngëm gi day roox di roox di roox ndànk ndànk dañu dem da am lu bari yoo xam ne gëmatu ko xëy na yow daal di yàq diine ji yëpp waaye ngëm gi mooy matal diine doomu aadama bi di ko wett wala mu di ko fukki kàpp kàpp boobu la ko dal ci wàññi ko la ngëm bu yokkoo nag nit ci gën a day day gën a gëm lépp lu jëm ci yàlla lépp lu jëm ci yàlla dana rëy ci moom gën a diis ci moom mu gën a ragal bàyyi ko lépp ko tere mu gën a ragal def ko ngëm ñu leen wax ko mel na garab jëkk jëmbat dañ ko war a suuxat ne dina mar nga war di bale suuf bi war a samp yu ko aar ba ngelaw li jur gi di ko lekk ngelaw li di ko daaneel noonu la iman ñëw yàlla rasulama dafa wax tay loo xam ne day tax ngëm dëgg ngëm gi dëgg dong am solo boo gisee rek yom ba xewam di ñuy taxal Seydina Omar ak ñu demee ne moom dafa am ko laaj Seydina Aboubacar anam yonent bi sala sala ne ay yàgg xam nga ku yàgg nga ci ci gën a kawe li tax ngëm parce que bu ngeen peese woon ngëm Aboubacar ak ngëm boo leen tuddee ci ñu dajale leen yëpp ngi ci biir mu wat leen kon ngëm moom mooy tax a gërëm mooy tax a raw nit ki kon lépp luy yokk ngëmam war na koo jaral lu ne lu koy wàññi war na koo war na ci sonn lu mu mën mu jaral ko lu ne ngir loola bañ koo dal ngëm ji wattandiku ci kër turu yàlla ñaan xalaat xalaat mooy lan luñ ko waxtaanee ay téeméeri téeméeri yàlla gis sa kanam te tiis loolu te xamuloo lu mu doon wax na ne ba tàyyi misaal ne bis boo xëyee ba jant sa jéggi nga ak jéego jëm ci sa bàmmeel bi te xamuloo ñaata jéego ngay jéggi àgg ca te boo ci àggee sa mbir jeex cër yëpp cër yi nga daan jaamoo yàlla yi nga daan xalaat yi nga daan tuddee yàlla yëpp yàqu na tuub mënatu fee nekk foofu la ñuy ubbi guddi ci tuub kon nit ki la mu nekk woon rek lam ca defoon rek la am amatul leneen xanaa lu dul moroomam ci itam mu ko ñaanal léegi nag nit ki la mu jëfoon bu ca amee yoo xam ne dafa daan raxas xolam muy sikkar tur yàlla ak xalaat ëllëg mbootum maanaam sekkar loolu mu daan def moom dana des ca xol ba di jëlee ay leer bu fekkee ne leeru ëpp na leer bu texee bi mooy li mu fi jaaraat ci mbiri àdduna dana texee ndax malaayika yi ma nii dañuy dal di ñëw waxtaan nañ ko biir rek ay xol yu yëngam fu ñu daje loolu ñoo xam ne àdduna daraja bànneex nekk nekk seen xol fu ñu daje ay lëndëm yu bare fay daje xol yu leer fu ñu daje am na ne ay làmp yu bari yu taal wala ay sondeel man nga buñ ko taalee fekkee ne ngelaw lu bari naka ngelaw li mooy xol yu lëndëm yooyu la di ko ëpp léeg-léeg mu tëdd wet bi léeg-léeg mu jubbantiku mën naa fay waaye bu fekkee ne làmp yi wala sondeel yi bari na lool di ëpp doole ngelaw li day daw ndax mooy ngelawal seytaane la bu ko defee ku fa dugg jëriñu ku fa dugg suñ borom yërëm la ndax leer yu bari leer yu ngëm day xëcc ci yërëm lay suñ borom tabaraka wa taala ndax jëpp ruu ku set suñ borom day tabi ci moom te bépp jëpp ruu ku set malaayika yi dañuy xaritoo moom te teewaayu malaayika yërmande am na njëriñ ci ngëmuk nit ak ci njëggalam ak barkeem ak ak xamam loolu yëpp ci muy sooy jaay jëng ak sabru na fil iman ngëm mooy genn wàllu diine muñ maanaam muñ mooy genn wàllu diine ndax mooy dimbali ngëm mooy dimbali bëgg yàlla mooy dimbali bañ wattandiku li nga bëgg tam tere la ko wala te gënu ci yow borom yàlla bi yàlla waa azza kamal yàlla waa xidul qahar xale arrahman allama alquran خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان على قصاص الميزان فأقيموا الوزن بالقسط لا تقصروا الميزان والأرض وضعها على اليمين فيها تأتي حمزات الأسنان الحافظ الإسلام من بيع dañ wax ne saar la woon la wax yaa nekk ñu borom daf daf koy jàng daf koy tari boobaa la ñuy wane daraja yi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu borom gën a dégg ba xàqtaay ci ñu di ko dégg rahman allama alquran xalaqa linsana allamahul bayana suñu borom dafa ñaax jaam yi ni mu nekk waxtu wu nekk di leen ñaax su mu ne wakk ay ñaay ci suñu waati ma rabb yamuruna alayha wa ma yamuruna kaw ko ñu def ci àdduna bi ñun ñu amuñ ci soxla di ko romb ndey joor ak càmmoñ day waral xol bu wow te yaral xol bu wow te boo ko dee gestu di ci xalaat day mujj lépp di la delloo ci yàlla boo gisee sax fas yu dox dina la delloo ci yàlla bu xale day jooy sax mu delloo la ci yàlla bu nit waxee mu delloo la ci yàlla ndax alquran boo ko dee jàng di ko settantal yooyu yëpp lay indi ci sa xol wax boo xamee ne jàng nga alquran mën koo wàcc ci weer fekkee ne kuy def tadabbur la ak tafahum day mujj doo ko mën a wàcc ci ay dëkk ndax maanaa yu bari yuy ball ci dugg ci sa xol ak sa xel ba mujj ay at ngay soog a wàcc alquran arrahman allama alquran suñu borom ci yéen ma leen di bari ngi tàmbalee ci yéen ñi di mu yéen ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci noonu xeetam yi mooy xeet yi nga xam ne ñoom la ñu tànn ci xeet yëpp yërmande yàlla ak tabiram gën a fis ci ñoom moo tax sallallahu alayhi wa sallam buñ ne di ko benn sàmm ñu ne ko waaw ñoom la xam ana kuy fay jëf yi ñu ne ko suñu borom mu ne ko ah dal di kontaan kon nag dëgg na mu ne ko lu tax mu ne ko suñu borom dafa tabe te bari yëg na leen sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam la ne waa ji di gën a diine de tax sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf ne ko ndax su ko waxee ma xisaab jaam ñi wala ma bàyyi laa ñoom nga xisaab leen ndax seen mënu bu bari bi mu ne ko yaa ma gën ci ñoom xisaab leen loolu xam bu xam yërmande suñu borom akuk tagin akuk baaxam xam bi ma ko xam moom gën a xam ñëpp yàlla moo tax mu taxaw taxawaay boobu déedéet yow suñu borom yaa ma leen gën a yërëm fuuf yow ma leen suñu borom dañ koy taatan ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa ne am na ci jamono bis yi jamono yoo xam ne suñu borom day xëpp leer di day tibb leer di xëpp di tibb yërmandeem di xëpp na ngeen fexe ba taatanu ko ñun ay jamono yu bari yoo xam ne bu la fekkee nga toog di tibb tur yàlla génn sa xel ci lépp lu jëm ci àdduna xalaat bis bu ngay dajee ci borom leer bi dañu la dugg te leer yooyu bu baree lu muy dugg rek dana jox nit ci weneen melo ci xolam la koy tàmbalee su fekkente ne dañu ne waxtu njël kon waxtu njël moo gën ci ñaan gën ci julli gën ci sikkar gën ci xalaat ak bis yi tànn guddi gàmb leelatu mawlidi nabi leelatu qadar guddi altine guddi ajjuma la ma woon dañoo warante ndax guddi ajjuma moo leelatu qadar ku gën a màgg kenn ku ci nekk am ngëneel yoo am te sa morom amu ko wala ma ñu ne leelatu mawlidi nabi ñu ne guddi guddi yàllante bi sallallahu alayhi wa sallam ashrafu wa leelatu qadri a'la وليلة المولد الذي أشرف ndax li ñu wax ci ko màggal guddi laylatul qadr li muy bari lépp laylatul mawlid nabi li ñu ci tudd dafa réy ndax laylatul qadr junni weer nga jaamu ko dundal laylatul qadr ko gën a màgg waaye nag gannaaw saxaaba yi comme ñu ñëwee jot ci jëf xanaa ci daraja ndax daraja moom nga ay ci coobaram yàlla waaye ci jëf kenn mënu leen caa jot ñoom ñoo fexe ba lislaam taxaw gannaaw yàlla ba tax na képp ku julli la nga war wala nga def dara am nañ ci seen wàll ndax bu dul woon ak ñoom yow doo julli doo woor doo ko xam ndax du kon lislaam bi taxaw ñun nag képp koo xam ne màggal nga juddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam da nga ne ko fekk yow moo xam ne yow moo xam ne nga xam ngeen ne lu tiis la bokk na ci ñaari xar yi nga xam ne jullit yow njëkk la yow wane gannaaw kon booba tiis na waaye ba nga ko fekkee wa saba da nga muñ yow bokk na ci yow gannaaw ak badar badar mooy xare bi jiitu ci lislaam ba nag nga diglu rek yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañ nekk ci jël bu xulóob kon doomu aadama bi nekkam ji mu nekk ci àdduna lu gàtt gàtt gàtt la te ñu koy xëccoo bari ñi xëccoo xolam bari ñu xëccoo ay xalaatam bari ñu xëccoo ay ciiram bari te yëpp lu ci nekk day jël wàllam ci nit ki lu muy defe te diir bu gàtt lay dund te diir bu gàtt boobu muy dund njaal jën ci yëpp du mën dara mujj bu defoon loolu du mën dara fekkee na ëllëg nag bëgg na ci traayu bàmmeelam dara du ko manqué di añ di reer di ci di gën a nekk di sañsee ci def lu nekk lu mu aajo woo yamal xiyaam mu des ci bañ a am gàcce bañ a rik dañ ne bu ñu dekkee yamal xiyaam ñi dañu sol mbubb ak tubéy ak dàll ak mbaxana ak kaala ñu sol mbubb ak tubéy ñu sol mbubb duñ jiitlu waaye daañu sol tubéy ñi sol tubéy kese ñuy ngedd ñuy xaawu fàlle mooy leen di def ci seen ndigg ba bël yi ak nag yi xar yi topp ñoom di leen ree loolu lépp li koy waral sàggan ci ci àdduna ci la moo tax nit ki bu jëmee foo xam ne yaakaar na ne dana fa fàttaliku dara wala dana fa jëriñoo leneen ci diineem jéegu bu mu jéggi payam yàlla rek ko xam demam ak dikkam bu toogee itam ci béréb bi ñu ko wax mu déglu ko li muy faral di wax rek naan benn lu gën a tuuti bën gën a tuutee bu saq ci xootaayu xol moo gën julli téeméeri rakka su borom roox lay waxal roox mooy ci li mbaa mu set roo xoleel ndamam xol ci doomu aadama la nekk mooy bëgg mooy bañ kon nafs dafa am ak roox ak qalb nafs mooy lan nafs mooy bi nga xamee ne ree dugg na ci yaram seen diggante ñu ñuy jàppante ñu ñuy doxal loola mooy nafat mooy fekk mooy deret bu dañee dem fekk sa jëmm naftu amati ba bañ ko ciy delloo naftu nag moo amee melaw yi melaw yi lay war a xeexal melaw yi ñuy yëbbal di gën a bon ci àdduna ak ci àllaaxira ah àdduna moom amul solo nit ki bu fekkee ne gëm na dëgg dëgg gëm lu naqari bu ko dalee it dana dundal ci yàlla ci xalaatam xam ne mën lay lu gën ci moom mën lay lu mu defoon ñu di ko ko xëy mën na dikk ci raxas ay bàkkaaram ba mu set moo tax gaa ñu baax na buñ masaan toog at te amuñu natt bu metti dañuy tiit jàq jaaxle ñun nag ku ci dara dal nga fàtte suñu borom tabaraka wa taala defe ne da ngaa alku wala sa morom jaam la ko teg ci fekk na loolu lépp day nekk ci tawxid day dindi tawxid li ma waxoon ni ngëm day ruus di ruus mën nay ruus ba set ci koo xam ne dafa xuus ci àdduna te du dellu gannaaw du déglu ak waar du fàttaliku ci wéet def dara day dem ba ni ma waxoon ne day dem ba du gëm a daanaka lu am solo mën na dem ba ngëmam jeex te nit ki bu gëmee ba noppi dellu gannaaw te ngëm ga dañuy fab te xolam dootu am buntu ngëm bi moo di ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون كيف فكرت ngëm na foo war a fexe ba ngëmam di gën a dëgër rek te ñu jëf yi baax yi gën a bëri rek ngëmam di gën a dëgër fekkee ne nag dellu na gannaaw lu bon bon ba mu ñëwee murtad la naka noonu suufi bi nga xam ne suufi bi nga xam ne dafa suubu yoon a tasawuf nga dugg ci biir di ko jëfe kooku bu delloo gannaaw dellu ci waat ci àddina mu mel ne ko murtad ci bett ndax yàlla jublu ko ba ma tuwal bi ko wan ko gannaaw dara gën koo nooy rëy dara gën koo garaaw dara gën koo aay yàlla suñu borom tabaraka wa taala waxtu wur jubloo ci moom dafa war di yokk dangay war di gën a jublu rek moo tax fi gën a jot góorgóorlu jëm ci yàlla moo gën a gaawal yàqule ndax la muy yàqule dafa ëpp la ci ci des di yàqule ndax dañ ne nit ki bu amoon ñeent fukki at jublu ko ci yàlla du gees mukk gannaawam bu amee benn gendiku bët mu geesu gannaawam la ko faat la mu ñàkk la mu ñàkk ci diir boobu mu geesoo moo ëpp li mu amoon ba mu tàmbalee ba léegi lu tax bu fekkee da nga jëm ci yàlla waxuma minute bu nekk waaye seconde bu nekk da nga am lu ëpp la nga liggéeyoon ba ngay toll foofu boo amoon juróom fukki at di jaamu yàlla te raxuloo ci dara bis bu ne weer wu ne at mu ne julli gu ne nga am lu ëpp li nga amoon ba nga tàmbalee ba tey loolu moo tax kon ci la gën a jege yàlla ak jaamoom ëpp sa jaamu yàlla ëpp ko doole ndax yàgg bi ci yàgg ak sax bi sax ne suñu borom ku yàgg la kon lu yàgg la bëgg ku yàgg la lu lu yàgg la bëgg suñu borom doomu aadama yi dañu naan yàlla dafa mën a seetaan déedéet mukk borom seetaan de seetaan mooy lan nga fekk luy xew nga taxaw te ne ku te nga xool ba xam na mu demee ba mu tàmbalee ba jeexal nga dem seetaan di nekk ni da ko jigéen nekk loolu mooy seetaan waaye ki nga xam ne ba dara amagul ba dara amagul la jànga woon ak mooy am lépp gis na lay def lépp dal di natt waxtu ba nga xam ne ca lay dajee yow ca la lay fay ko fay ko jëf kooku fara na te waaye nag doomu aadama day fab jikkoom jox ko suñu borom tabaraka taala dañ naan doomu aadama dafa bëgg bu tawee mu fab jiwóom réew ji taxaw ci saa si nga sax mu taxaw mu màgg tërër tërër mel ni ñor mu wattu dem suñu borom nag doxaliwul noonu ci àdduna xëy na am na mën na am ay àdduna yu dul jeex ñu kenn xamul nu mu toll mu doxale ko neneen mu bokkul ni mu doxale àdduna bii waaye àdduna bii ni mu ko doxale ñeew lépp doomu aadama ci jote suuf si ak asamaan si nga xam ne lépp lu mu aajowoo te jëmmam aajowoo ko ci suuf la nekk lépp lu mu aajowoo te ruuxam aajowoo ko ci kaw la nekk al malawul ala ca la leer yu jóge di wàcc ci ñun ci ko tax ni du ci am dara ci ndabam dëng du seet la ci ndabam këpp du am dara ci raxasul ndabam du set kon nit ki li koy may li mu bëgg te naa bëgg ñu ko leen yàlla xam ne àdduna moom amul solo doo jeex te buy jeex nag lay gën a soof àdduna doomu aadama bu ci génn àdduna dina ko soof lool li muy gën a bëgg mooy bañee na ñëw ci àdduna ndax bu boobaa sakkar yépp ay ubbi ko balay roogee rot ci sukuraat dana jàll lépp luñ ko daan wax moo xamoon moo xam gëmoon na ko wala gëm ko woon lépp def ci tëb ba mu leer ko nañ ñi te dana mel ne dundul woon ñàkk sam ci àdduna gerte ngoog waaye jëm gi nga xam ne ruuxam malaayika yi ñuy jël fii ñoo gën a tedd ci àdduna seen jëmm rafetaayu seen jëmm seen kanam seen col seen teraanga seen baaxaay seeni leer seeni yére li ci nekk jéggi dayoo ci doy waar ñu ñëw teral la teral yoo xam ne amul ci àdduna fekk sa nag bët yi bokki ko na génn nga ci àtte àdduna loolu yaa ngi àtte bar sax la nag yoon yi jóge fi nga tëdd bëgg sa bàmmeel bi waa ji si bàmmeel bi ci lañ dëkka noonu ci mooy romaan bu ñu dem mu karam nag yi di ñëw seen melo yi waxtaan nañ ko ay yoonu yoonu yoon seen bëñ yi dañuy xottee suuf si di ñëw fu ñu jógee ci suuf ci suuf nag moo ko bëggee leeral day gudd lool diggante suuf asamaan bar sax ñu dee day ko am ak seen nekk ak ci ci nekk fa nga féete sa morom ak nga nga di nekk sa morom bari na ci yoo xam ne li ko doomu aadama bi xamee rek xolam leneen dañ ci jóge ci xaj ndax daf koy fee dal kàttan suñu borom tabaraka taala ak ay jëf yi dem moo tax bu mun ko rek nag ci ñëw nga xam ne seen bët yi dafa mel ne melax googu nga xam ne su melaxee nga defoon dafa dugg ci sa bët seen kàddu yi moo gën a xumba dënu gi ci mujj lislaam ñetti xaaj la kon su ñu ne iman islam ixsaan ixsaan kenn attalewu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam islam lañ ko attalewoo islam mooy lan mooy jëfe li ñu digal lépp bàyyi li ñu tere lépp nekkee biir nag diggante jaam bi ak boroomam la yonent bi sal sama dafa ne dañ ma digal ma xeex ak nit nit dañu ne laa ilaha illa muhammadu rasulillah jëfe ko suñ ko defee musal nañ ci man seen deret maanaam seen bakkan seen alal seen teraanga ak seen honneur kon tasawuf mooy ixlaas mooy ixsaan an taabudallah ka annaka taraahu kooku yoonu faq ne wutee tawxid ñaar la ay isrona waajibaat mustaxilaat yi jaaisaat yi ak waajibaat yi lu ñuy wax la ci lamiñ ñu ne nañ ko fas waaye tawxidul maarifati ki nga xam ne irfaan la kenn du ko jàngale dañ lay wan yoon li ngay jaar rek ba àgg ca mooy ñi nga yëgee amuk seen borom bi ak màggam gi ci sa biir xol ak ci sa roo ba nga xam ne doo ko mën a tàggoog moom lépp looy jëf mu ngi sa kanam da nga koy bàyyi xel lépp looy bàyyi loolu loolu mooy un temps bu dem la te am na ko kanam da nga am da nga koy yëg yëg goo xam dafa mel ne yaa ngi koy gis moom suñu borom tabaraka wa taala yëg googu boo ko amee day sax ci yow dëgg la talawin day am ak talakkun tënkiin ak talweex ñaari maqaam yoo xam ne doomu aadama du ci génn mukk ndax bu ma waxoon sànq ne yiy jeexital ci doomu aadama dafa bari jaww ji seddaay bi tàngaay bi ngelaw li lépp day jeex aarif day toog aarif moo gën a sensible ci xam yàlla day toog di wax asamaan si niir wala asamaan si setul wala xol yi nanguwul nekk ca jataay ba la muy wax du ko xam bu baax du ko leer mu nekk ci bërëb boo xam ne bis boo xam ne asamaan si dafa set fecc ay xol yu nangu rek nekk fu muy waxe kii maanaam yàlla la ko suñu borom di xamal dana ñemee wax lii di ci def du ko ñemee wax mu wax ak liggéey ci bi mu war a wax ak ñoom doomu aadama bi gannaaw suñu borom buñ ko indee ci àdduna dundam ak léppam nekk ci suuf si ndox mi muy naan li muy lekk bu tawatee li koy faj lépp suñu borom def ko ci suuf si mënul a génn suuf si yaram moo mënul génn suuf si reen ak dëkk bi soxlawul si dara moom waaye nag féet yaram a ngi mat sëkk roo ji mën a nekk ci moom waxtu woo xamee dëgg nañ bopp bi roow dootu ci xaj mu ñibbi fa mu dëkkoon waxtu woo xamee ne jam nañ ko ba bëtt xol bi roo dootu fa xaj mu génn dem fa mu dëkkoon mooy dee waxtu woo xamee ni itam doomu aadama ni ko suñu borom tabaxe nga xam ne bu amul borom benn torox ndoll du gis jinne du gis malaayika waaye doomu aadama di bind zaahiram gën a mat du gis jinne du gis malaayika jinne mënu ko dugg fenn li ñuy wax rab rab du ko dugg fenn rab loolu yëpp lu ci ne dañ ko waxtaane ba tey sallallahu alayhi wa sallam dafa ne jinne ñetti xeet la xeet yi ñu ngi mel na ñun yónni na yonent bi ci ñoom daañu leen xisaab yoom alxiyaam daañu jéggi siraat daañu sitra yu bàmmeel bu keroogee ku ci texe dem àddina ku ci texewul dem safara beneen xeet bi mu ngi mel ne ndund yi dox xaj yeeg picc yeeg wulli yeeg yooyu yëpp nga daje ñoom doo xam lu ñu doon wala jaan fekk na jinne la moo tax madinatul munawwar fuqaha yi dañoo tëral ba ku fi gis jaan bu la di tëb rey ko na nga diisoog moom ne ko yow kat bu fekkee ne jaani kese nga boo fi dajeete yow boo fi dajeete yow dinaa la rey bu dee jaani kese da nga dajeeteeg moom nga rey ko bu fekkee si nag jinne la du ñëwaat waaye bu fekkee da nga koo gis rek rey ko fekk muy jinne nga faat ba kanam da nga ko layoo ñetteelu xeet yi dafa mel ne moom sallallahu alayhi wa sallam nee dafa mel ne ngelaw moom di wala fi wax rab mën na fekk nit ki di nelaw mu dugg ko waaye day fekk mu am porox ndoll boo xam ne matut matut bindam manqué na fa mu dugg bu fekkee ne dugg na moom rab boobu docteur yi buñ ko dee faj ñoom li nga xam ne normal li def kii moom la ñuy gis buñ ko buñ ko sakkee mu dañ nangu duñ nangu jinne nangu wuñ ne rabam yooyu yëpp mënuñu ko waaye léeg-léeg nag ñu dem ba jaaxle ñu ne la demal seeti garab yi wala fii ki nga xam ne nag fajkat la boo xam ne moom day indi ay sungu fa kii wala kii mocce ki wala muy xaatim pour yàlla wala loolu moom day génne jinne yi te dootu dellu si ko mën a dëgg wala tuur kon doomu aadama ak jinne ak malaayka yi nga xam ne ñooy malaayka ci suuf li malaayka yi nekk yi dëkk ci suuf si lennu rawxaaniyaat yi dëkk nekk diggante nit ak jinne jinne mu am ci safara lañ ko bind mu am saxaar amut caay caay amut coxar amut dëgg malaayka ñu bind ko ci leer ak kese doomu aadama ñu bind ko ci suuf waaye doomu aadama ñu ko bindee ci suuf dañ ko tabaxee noo xam ne lu ne mën na nekk ci biir lu ne mën na nekk ci moom noonu ñu ko tabaxee muy tabax bu doy waar bu rafet boo xam ne fii ahsani taqwiim la suñu borom wax ci gën jaar rafet yi mel melal bu ko jëmee ci lu loo xam ne lii luñ ko tere la nag ci la bàkkaaram bi gën a màgge ndax moyut nit moo gën a foor moyut lu nekk naka loolu jaamoo jaa xeetu jaamoom ndax malaayika yi alayhi salaatu wasalaam bu ñu amoon yonent bi salaasam nekk seen yonent dana yokk seen i maqaama lu bari yokk seen tua bay jaamu doomu aadama yi suñu borom may leen loolu ba noppi ñu bañ woon ko gannaaw ñu ci bari woon ko gannaaw ñu ci def sobental ko ñu ci def gëm ñu gëmuñu gëm ñu gëmuñu buñ ko seetee nag ci li nga xam ne mooy asbaab yi naka nit ku ne mën ngaa gëm nit ku ne mën ngaa gëm wala am na lu lay tee gëm li ma waxoon léegi boo toll ak sukuraat da nga gëm ngëm koo xam ne benn nit benn malaaka du am ngëm gu ko ëpp ndax li ngeen wax yëpp da ngay jàngal moom weddi moom gis bokku ci waaye nag la lay gëm loo mooy mooy lu jafe jafe jafe jafe jafe gëm daañu ko natt ci ne nit ki sedd bi dafa metti mu war a sang wala mu war a jàpp tàyyee lool war a julli mu ne man de mënuma damay bàyyi ba sedd bi waaye ñu ko ma jàpp ma ne damay noppalu ba sawar julli ñu wax ko waaye bu ñu tegoon fii kat cinq cent mille francs la ko jógal julli mu daal di ne bërëb dal di julli julli bu gaaw waaw kon suñu borom xam na ne da nga laajee loo xam ne suñu borom xam na ne du dëgg waaw mu dëgg kooku nag yow ma xalaat ne da ngaa lan bañ da ngaa bañ ndax yàlla jaradu la ko yàlla jar waaye xaalis jaral na la ko loolu bu ñu ko seetee ci ngëm day daal di métti lool lool tax ngëm day sell moo ko àndee wut day sell rek nit ki bàkkaar bu mu def mu wàññi ci ngëmam ndax day def tâche ci xolam ci xolam bu tâche yi bare mooy rëynu reynul qalbi kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuuna ñooñu kalla innahum an rabbihim yawma'idhin la mahjubuuna jëmm ji mu fekkente ne moom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñoom àggul fa nga xam ne dana ko fegal safara te pépp zarra ci ngëm dana fegal nit ci safara dana ko fegal nan la ko koy fegale du caa gii ni du ko gis du ko dégg du ko jege wala du ca dugg de dana bari bari goo xam ne ngëm gi dana dëgër dëgër goo xam ne safara si daf lay ragal goo xam ne ngëm gi dana dëgër dëgër goo xam ne safara si daf lay ragal ay mus yu teew mën na woyof wàññi ko ba nga xam ne du watee jóge safar si ba sëñ bi ba xëm suñuy xëm suñuy téeméeri junni yoon ngëm gi soog a ëpp doole tàngaay yi nga génn ci wala nga dugg ca biir juróom-ñaar fukki junni at mën nit mën na ko ca am ci kenn ngëmam rek soog a génn waaye képp ku gë- nangu ne yàlla am na rek ak loo mën a fas boo duggee safara bi ba ci ak yàgg dafa génn léegi am na suñu bari ñoo xam ne buñ leen ñëwoon suuf si pepp yi bis bu nañu for ci benn pepp bis bu jeexee ngeen génn safara dem àjjana duñ ko gëmee waa safara nag dana yërmande yàlla ba tey léeg-léeg mu agsi ci ñoom daañu dem di lakk di lakk di lakk di lakk ba mu yàgg suñu borom roox leen nelaw ñu nelaw diggante boo xam ne diggante boo xam ne duñ njëkk safara duñ njëkk dara bu jotee ñu yee leen ñu dellu see ci ca musiba ma safara yi day seet nit ci kaw féete ko suuf da nga gis la la suuf soo xam ne dafa tooy tàng ba xonq nit ki di ci róoru ay xur soo xam ne buy wàcc day barastiku di bërëmu nit yoo xam ne buy yëpp dina lay daj waaye tàngaay yi daf koy lakk ba mu mel ne janax jooju ñu wësam dañuy kukk ba nga xam ne da nga naan dara desatu ci ñu dellu beesalaat yaram bi ba mel na meloon safara yi tàmbalee di ko lakkati day kenn sax kortoon nga xam ne dara ci adduna jaru ko dara dara dara adduna jaru dara àllaxira boo nekkoon ci adduna nekk multi milliardaire adduna bépp nga moom ko ñun ñëpp sax ci ndigal loo leen wax ñu def loo leen tere nga bàyyi ko doo feebar doo xiif doo mar ame say laaf di naaw bu leen adduna fu ne la dem fa yëpp nekk say jaam bis bi sukkuraat ñëwee yaa ki nga xam ne dafa dëkkee woon tawat ak xiif ak njàqare ak rafle ak ñu di ko toroxal ak ci métit bu leen dugg sukkuraat yow day mel ne musula am bànneex ci adduna moom day mel ne musula am naqar ci adduna nee ñu àjjana buñ ko noon sa ndax benn waay bu ko suñu borom génne ne ko waaw ndax yow ba ma nekk ci adduna mas laa am naqar mu ni déedéet du ba ma sàkkee ba tey peut-être moo gën a naan sànni ci adduna su gënee xéwlu ci adduna bi ko ne te ndax safara fraction seconde bi génne ko ndax yow mas ngaa am lu la neex mu ne du bañ ma dundee ba tey mu ko am naqar balay metti ci nit balay metti mbugal balay metti day far lépp lu doonoon bànneex ci yow lépp loo xamante ni lu baax fépp foo jaaroon lépp loo xam ne defoon nga ko mu neex ci yow lépp day raf di mel ni musul am musuloo caa jaare nga seet sa gannaaw mel na mbugal nga nga juddowaale woon am musul mbugal wër na ci wet gu nekk te xamuloo kañ nga cay jóge bu ko defee jaam bi yooyu yëpp nekk ci kanamam bu fekkoon ne dana ko teewlu na mu waree lu bari dana ko mën ku ko saaga ku ko dóor ku lekk alalam ku ko xas ku jëw lépp dana woyof ci moom dana woyof ci moom ndax daf koy wóor ne moom dafa war a yërëm ci koy tooñ ndax kooku li ngi sànni boppam ci biir norum suñu borom ak mbugalam moom mi ñuy wax loolu mu muñ ko ngir yàlla mu ngi bënax boppam di jëggal suñu borom ak yërmandeem kon jullit ñi dañu war a boole seen bopp ci toll ñu waxe woon sànq ne làmp yu bari ñu dajaloo leer ga day gën a màgg rek su ko ne jullit ñi buñu boole seen i xol tax lislaam benn tool la ku ci nekk fa nga nekk rek yaa ngi ci tool bi boo bayee ñu gis ko ah boo bay gis sa bopp da koy def te ñu ne boo mënee wax mooy faatu benn pepp noonal noonoo bu nekk sa xol ci benn jullit boobaa tax a ji mat waaye li gën a soox mooy noonoo diggante ñaari jullit ndax waxtu woo xamee ne njël jot ba malaayika yi wàcc ci asamaan si mujj si ñëpp ñaari jullit yi ñu fekk ñu am lu ne seen diggante duñ leen balal dañ ci def dañ leen di balal suñu borom daf naan bàyyi leen leen ba ñu juboo te ku ci nekk sa xol nga boole ko sa xol moom ngeen seen mën a jéggalu te malaayika yi ku mu jéggalu ñu jéggal la kon doomu aadama yëpp luñ fexe boole leen dugalu leen rafetal seen ak ànd ku ci am soxla muy soxla si yëpp ku ci am naqar yëpp bokk ko mooy li gën ci jullit yi mooy li gën ci ñoom kenn ku nekk nag sax fekkoon ne da ngaa doon rek jotuñu ak kenn dara jéemuloo xam kenn amuloo soxla ci moom di jullit di seen mën a ko woor rek sa tuyaaba tuuti lay doon tuuti ndax ñun ñëpp boo ko doon boo ko doon def tey yéefar bu la jëriñ dara te jëriñ jëriñ bindeef yi boo dee yéefar it dana la jëriñ ndax doo dem safar parce que nit ku bari jëriñ ci ci jullit ñi ci ak ci doomu aadama yi rek suñu borom du ko lakk du tax du tax ndax dafa ñëw suñu borom ci benn ci téeméeri jikkoom yi suñu borom téeméeri jikkoom yi ku ci am benn boo ñëw moom rek du la lakk boo tabee boo amee yërmande boo bëggee nit ñu baax ñi lépp ba ba muy jeex boo indee izza bokkul ak ci te bokk ndax jullit waru la fooye boppam waru la sàggane boppam ba nga di ko def reetaanukaay su fekkente ne yooyu yëpp nit ki am na ci benn boo xam ne amal na ko am na ko te mu bokk ci ci suñu borom yi jikkoom yi dañu nit ci safara dañu nit ci safara leen juróom-ñeent yooyu ñu wax ne ñooy ahlul araaf wala araaf ne kon mooy dañoo wóote te lu mu doon ay juróom-ñeent yooyu duñu dem safara bu ñu demul àjjana duñu dem safara am na nag ñu doon mën a ramb moom ak bu xam si ñu demee na ñoom dañ leen ramb ba ñu dem àjjana ndax ñoom dañuy setal nit ci ci takkoon dañ koy setal seen leer day fóot naka noonu leeruk malaayika day fóot malaayika mën na toon ci bërëb nit ñëw toog indi fa bàkkaar leeruk malaayika bi fóot ko ba bàkkaar ba set wecc malaayika dafa bëgg ñu sell wax naa ne day xaritoo képp ku sax xol set malaayika yi dañuy xaritoo yow ñu ne dina xaalu rabbina laahu suma staqaamu tasnazalu alayhim al malaayika alla taxaafu wala taxzanu abshiru bi jannati lati kuntum tu'aduna nahnu awliyaakum wa fil aaxira te roo loolu wax nañu ay yoon yoon roo bu setee tey doon mbokk malaayika yi mën na ànd ak malaayika yi di ñaaw ñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee woon sayidna jaafar ibnu abi talib buñ ko reyee ci wax ak muuta xare muutal lañ ko reyee woon fekk dafa amee raay bi drapeau bi ñu dëgg loxo bi buñ ko yoree mu jàpp ko beneen loxo bi ci des ñu dëgg boobu mu kepp ko ci mbagg yi ñu fere mbagg mbagg yi buñ ko reyee sallallahu alayhi wasallam ma nga ci Madina yow ma nga ca nga xam ne doxul ay weer la mu ne sayidna jaafar ibnu abi talib muy yàlla saxal ko ñaari laaj yi muy naaw ànd ak malaayika yi jëm réew mi wax bii sa di leen dugal ci ne seen maram bi lee mu dañu toog baa ngi ñëw xam ne kon ruux ruux moom bu setee ba sell dëgg leneen la mën na dem sax ba ëpp xam-xam yenn ci malaayika yu bari boobu ci àddina bi taalib radiyallahu anhu am naa ci xam-xam loo xam ne jibril xamu ko Mikaayil xamu ko Azraayil xamu ko Israafil xamu ko loolu mooy doomu aadama bind bi ko suñu borom bind ci ahsan taqwimin ci ahsan taqwimin dafa xóot te yaatu bari lool kon doomu aadama yonent rek la mun la jot yonent ndax yonent lu nekk moom dañ ko tabaxaale ci moom mooy mënu koo dindi njuumte mënu koo dindi tawat mënu koo dindi dara mënu koo dindi dañ ko tabaxaale ci moom moom bu juddoo rek kiiraay nex nekkul diggante ak boromam yonent moom noonu la wàllu ñu day am istiabaat maanaam day am ay disposition mu fàggu suñu borom defal ko lu mu jur ñu teet lu mu jëm ci lu wet ci lu jëm ci loolu mën ko muy liggéey di xeex di xeex ak seytaan di xeex ak bakkanam di xeex ak dunya di xeex ak bànneexam di gën di set di gën di jege yàlla ba àgg bu àggee nag dana àgg soo xam ne léeg dootu mën a yàqule dara dootu ko mën a yàqal bu àggee sax nag foofu mooy tamkiin tamkiin jublu ci tamkiin tamkiin dañ koy misaale Zalexa ak Seydina Yusuf ak Aliou Cissé bi nga xam ne Zalixa mooy jabaru Aziz bi Aziz Misra xam nga ministre bi la ko yóbbu ni mu meloon ci Seydina Yusuf ñu di ko ci ñaawal mu daal di rey ay nag invité jigéen ñi ci dëkk bi yëpp ñu jox leen ay paaka ñuy daggat ñuy daggat yàpp yi mu daal di ubbi bunt bi Seydina Yusuf nekkoon ñu ko génne te mu génn rek yëpp ne ko jàkk bay dagg seeni loxo ndax ñun ñu ni ko suñu borom melee woon ni mu rafete woon ba jéggi dayoo ñu ne ñooñu ñooñu ñuy soog a àgg ci suñu mel li seen misaal mooy ñuy soog a àgg ci suñu borom te nga xam ne dañuy nekk ci sa mar yëg ci ci naqar nga xam ne mu ngi mel ne góom bu wër waaye légat baa ngi fi maasologul tam siin mooy jëlee xam li nga xam ne mu ngi ànd ak sagoom ñu fa mu génn mu di ko xool yàq ñu ko dara ba mu seet ñuy dagg seeni loxo ngir bëgg leen saxalal lay yi nga xam ne yéen bu ngeen meloon ni man sax sant yéen maa leen tane ndax man mu ngi dëkk ak man gis bu ne ma gis ko te maa ngi nekk di ma nekkoon yéen nag ngeen gis ko rek dagg seen loxo yi fàtte yàpp yi loolu mooy lu bees li nga ci soog a àgg ci borom tabaraka wa taala nga xam day yëpp lépp lu nit ñi yëpp waaye ci àgg ci tam ci mel na sa nga xam dootu yëpp lenn lu lu lu jóge ci yàlla duut lu gërëmul yàlla léppam yàlla la koy yëge mooy ki nga xam ne yàlla mooy bëtam yi muy xoole di loxoom yi muy jëfe di tànkam yi muy doxe nga xam ne waxtu wu ñaanee suñu borom mu nangu ko waxtu wu ko musloo mu musal ko ci la nga xam ne ci lay muslu waxtu njëriñ tey tey tey tey lañu jëli waaw kon li nga xam ne moo gën a gàtt te du ñu jëriñ loolu la ñuy déggee suñu xol suñu toll suñu xel di yéeg di fàttali ko suñu kanam fàttali ko kiraayu bàmmeel fàttali ko borom bi li mu ñu sant te mënu ma matal lépp suñu càggante bi te suñu jëm mënuñu koo mooy fokk ñu jaar ci kuraat te dañu ne waar yaxay xew yàlla rek ko xam diggante bi lu mu gàtt gàtt ci bët nit ñi mën naa yàgg junni ak maanaam ci biir saxal léegi mu daal di daanu dee ak ci oto bi nii teelu mu daal di dee ci saa si ci kuraatam boobu mën na yàggee ci moom ne junni ak jaayoo junni ñii ci def ci kuraat juróom benni weer itam mën na neexe ci borom loo xam ne lu dul àjjana moo koy daax mën na gaawe ci borom itam gaawaay boo xam ne mu nekk ci lu jëm man yàqu hurmatullahi fa huwa xayrun lahu inda rabbi day laaj ñu loolu ñu koy
alquran mënuma koo firi duma ko firi alquran bind suñ borom la suñ borom nga xam jenn aaya lu sa xol gën a sete nga gën a bëgg yàlla mën nga koo jàng fukki at bis bu nekk nga dégg ci loo déggul woon li nañ ko nag ñun ngir lu waaru ci waaye suñ borom tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waxal ci alquran wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi maa nuzila ilayhim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo war a leeralal li nga xam ne moom la ñu suñu borom sant ak lim ñu tere wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi maa nuzila ilayhim kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo dégg alquran te nag dafa am ay suñu borom wax ne wa maa ya'lamu ta'wiilahu illa Allah war naa taxaw ne fi ñu jooy ci nag am na ñu koy def ñu koy def asxaataf waaye gis ne istinaaful kalam moo gën a wóor mu ni dalika man yuazim xurumaatillahi fa huwa xayru lahu zaahir bi rek dañuy waxtaan rek wocc aaya bi fee waaye aaya bi bu ñu ko déggee li muy indi ci suñu xol ñu waxtaane loolu dégg ngeen li ma wax xormaatullahi ku koy màggal mooy ki ko gëm dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nga xam ne képp nit ku ñu yaakaar wala lépp lu ñu yaakaar day réy fi moom réy fi xolam ba doy waar am lu mu def waxtu woo xamee ne dégg na kàddu bu jëm ci yàlla mu daal di am lu mu def ci xolam waxtu woo xamee ne gis na nitu yàlla ñi dal di am lu mu def ci seen xol waxtu wu rombee béréb boo xam ne bërëb bu ñu jagleel suñu borom rek la mu am lu mu def ci xolam màggal boobu muy màggal war may suñu borom tabaraka wa taala day dal di xam ne suñu borom moo bind lépp loo gis te boo ko boo màggalee war maam lépp lu mu bind da nga ko fonk ndax bu ko bëggul moom wax naa ko tay ne ñetti bëgg-bëgg la suñu borom am ci li mu bind nit ku koy yàq wala nga def ci rëb dana lu dul loolu da nga ko layoo bëgg gu njëkk gi mooy gi mu ni mu bëggee yonant yi alayhimu salaatu wasalaam ak malaayikatul muqarraboon yi ak xutbul xawsi ak aarifoon bi ay ak siddiqoon yi ca azal ba dara xewagul la leen bëggoon ba bind leen indi leen ci àddina méngoog ñoom ci lépp lu ñuy def ñuy xaritam képp ku leen wax lu bon mu lor la képp ku leen def lu bon mu lor la képp ku leen sonal mu lor la képp ku leen wax lu dul noonu mu loola lor la mooy ñi mu bëggoon ca asal mooy bëgg gu njëkk nga xam ne mooy du gën a am doole bëggu ñaareel bi mooy li mu bëgg képp ku gëm jullit bu mu doon rek nga xam ne lor ko màbb kaaba ga nangam yoon ñu tabaxaat ko moo ko gën a woyof sallallahu alayhi wasallam dafa fab loxo bi teg ci kaaba gi tabax bii de xam naa ne suñu borom rek a tax ñu tabax la fi suñu borom lañ la tabaxe moom nga fi taxawal yow lañ fi moom lañ fi jaamu ci yow waaye ma màbb la ñu tabaxaat la ma màbb la ñu tabaxaat la ba muy nanga bi mu ma gën a rol lor benn jullit lu ko waral kon ñi gëm ñoo nekk ci taxawaayu ñaareel boobu bëggee la suñu borom tabaraka wa taala moo tax wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannamu suñ borom rey jullit tey ko fa jazaa'uhu jahannam sa tey mooy jaanama rek bu fekkee yaa ko tey bu fekkee yaa ko tey naka noonu lor jullit bi noonu la xotti suturaam ñaawe noonu la araame naka noonu noonu la jëw ko gannaawam wax wala nga ñaawal ko loo xam daañu ko ko xoole noonu la ñaawe nga fab xàqam alalam wala dafa am loo xam ne xolam seen bés noonu la bettee boo ko ko def rek la mu màggalu xormaatillah daf taxaw bi xormaatillah ci gàttal ñetteelu bëggeel gi mooy lépp lu mu bind yéefar bi dugg na ci seytaane si dugg ci ñax mi dugg ci garab yi dugg ci ba nga xam ne boo romboon ñax gi dagg ko te amuloo ci soxla ñax gi mu ngi doon sàbbaa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi yusabbihu lillahi maa fi samawati wa maa fi lardi maa moom du lu xellu rek lépp lu nekk ci asamaan lu nekk ci suuf rek yépp ngi sàbbaal suñu borom boo daggee ñax boobu dagg nga sàbbaa ga yan nga loo xam ne xam xamuloo lu mu doon lu dul nga am ca soxla nag boo ci amee soxla nag soxla su doomu aadama moom la suñu borom jiital ci yooyu yépp léegi même yéefar bi alalam moo ko moom boo ko xamee daañu leen àtte da nga ko delloo boo ko tooñee tooñ bu mu mën a doon daañu àtte seen diggante te daañu fayu tooñ ga waaw suñu borom a ko bind te alalam la kon alalam yëpp nga war a màggal waaye nag xormaatillahi fa huwa xayrun lahu inda rabbi bu nga delloo ci aj moom lu leer la soxla wala laaj am na ay béréb yoo xam ne yu ñu warmaal la war ma ju màgg diggante Makka ba ca Madina nin ko war a màggale mooy màggal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne alxajarul aswad yamiinu laahi fil ardi daju xajarul aswad mooy loxo ndeyjooru yàlla ci kaw suuf jo tekkiwul ne dafa bokk ci yàlla déedéet waaye li nga xam noonu la ñuy nuyoo ni jox ko fab ndeyjooram di ko muucu ngir bëgg koo jegeñ jegeñ lu alxajarul aswad noonu lañ koy tegee sa loxo ñëcc ko fóon ko loolu rek la ci jublu kon yàlla sama borom tabaraka wa taala li ñu bind lépp daf cee ràññale fab leen teg ci kaw leen fab leen gënal ko ci kaw leen fab leen gënal ko ci kaw leen fekkente ne da ngaa dem ci réew yu bé- béréb yu sell yooyu moo xam da nga def mujaawara xam ku mun jiwaare am na wala defuloo mujaawara da ngaa aj rek dellu wala da ngaa umra wala bu fekkee da nga faa toog julli fa ñeent guddi yi ñuy wax ci madinatu munawwara wala da nga faa toog ngir di mën a nemmi ko rek béréb yi di dundal sa xol ci ngëm foo toll war ngay gën a fàttali ko màggal bi nga war a màggal war may yàlla ci béréb yu sell yu tedd yooyu yonente bi alei salatu wasalam bi mu jógee Madi- Ma- madina jëm màkka bu mu dikkee ba ba jege màkka dafa dal di sëgg nii ci kaw gëleen bi dal di sëgg nii saraxlu mokk mokkul boppam ngir màggal xormaatulaahi yooyu sëgg ba mel ne day day day sujjóot ci kaw gëleen bi jullit ñi gis ko ñu toppandoo ko ci xam bu mu xam suñu borom tabaraka wa taala moo waral loolu le daalika man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khayrun lahu inda rabbih kon mën nañ ci wax lu bare bare bari waaye wax li xat na loolu defe naa ne salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala am na beneen laaj wax xanaa wax ci war na jëlee jëlee sax kon bu amul benn laaj mën nañoo taxaw di fi ngeen dégg yaatu xurmatillahi fa xayru la inda rabbihi maanaam xurma yooyu sëñ ñu wax na ci kaaba gi ak madinatul munawara noonu laaj bu fekkee am na yeneen xurmaat ak jullit ñi ak ak jullit ñi ak bindi fi bu fekkee am na yeneen yu def itam mu buñ ci buñ ci mënee gën a yokk leeral ci place yi ak yeneen jamono yi ak barab yeeg yi ak ak nit ñi nit ñi nit ñi borom bi ñu wax ne jullit ñëpp waaw loolu ci sëñ Seer ak bëggam lu baax bi ñu jullee takkusaan ba noppi da nga xam ne yéen fas yéenee dellu rek toog yi bu ñu fekkoon mënoon nañoo dellu ci ay kàddu mu ne ko waaw ba- mën nañ ko insha allah su fekkee ne itam am na ñu am ay laaj bu ñu ci xam rek muy tontu ko ci bu soobee yàlla asalaamaaleykum dañu war a am ay laaj waaw salaamaaleykum waaw comme xor xor xormaatullahi yi maanaam li ma ci doon doon suñ bi daal ñu ko ci maanaam ay barab yi nga xam ne dañ ko war a warmaal yu bokkul ak barab yooyu mu tuddoon léegi muy Makka ak Madina mu mel ni fe- fenn yeneen barabu eh, barab yi nga xam ne dañ koy siyaare wala yi ñuy nangoo ñaan ak yooyu ñu mu daal ñu ci leer ak yokk ci taalib yi ñu gën cee jariñu ak ci nit yàlla yi nga xam ne moom la ñu war a siyaare yooyu waaw ndax am na benn wa iza lillahi qawmun isa hallu bi manzilatin hallam na daa waal fi anwaaru tastaqum kullu ardin yanfidoona biha ka annahum bi bixaalillahi amtaaru ñu teg ca imaam Maam Cheikh wax na ci ab bayt boo xam ne ñu def ne isa laqitahum aw kunta zairahum bi yamnihum faaraxat ka dahar aw zaaru boobu siyaara boobu itam mu bëggoon mu dolli ci ak leeral siyaare nit ñu baax ñi ak siyaare awliyaa yi lan lay jëriñ taalibi bi salaamaaleykum
ci mbirum tasawuf ngeen ma indi tasawuf nag mbiru xol la mbiru misaaj la mbiru zawq la ñu ko waxee ci tàmbali bi rek fiq ak tawxid ak tasawuf mooy ñetti xaaju lislaam waxoon naa ne tawxid ñaar la tawxidul mutakallimiina ak tawxidul maarifa misaaloon naa ko fiq waxoon naa ne mooy ndigal yi ak tere yi jëfe ko xam ko tasawuf mooy ixsaan mooy ixlaas mooy diggante jaam bi ak boroomam suñ boroom tabaraka wa taala li mu denc li mu feeñal di bare ci moom dafa denc ci nit ñi denc ci malaayika yi denc ci béréb yi denc ci bis yi ak jamono yi denc bu ci nekk la mu ca denc am na ñu mu ca xamal lu bari bu dul léppit denc suñu borom nag moo la koy wan nga mën koo gis waaye nag am na yoon woo xam ne ci la nit ki war a jaar ba ñu wuññil ko ay secret loolu mooy tasawuf sallallahu alayhi wa sallam xam ne na ci ay ñetti xadis ne atte yi ci zahir rek lañ ko wakiil moom la war a atte ci jaam yi julli woor tooñ diggante àtte nit tooñ yooyu ngay nit ñi nga àtte leen ñu xëccoo dara nga àtte leen ak mboolem luñ tere ak mboolem xeetu jaamu yi ñu digle li ci def mu ne allahu yatawalla saraira suñ borom moo méngoo secret yi ca biir nit ki kooku nag xam-xamu tasawuf moo koy jàngale ku xamul tasawuf nag buñ la ko waxee dana la jaaxal lool loo xam-xam sax ak loo xam-xam tawxiidu mutakallimina yaa ngi mel ne historien bu ñëw ci laboratoire ingénieur bi wala professeur bi xam na lu bari waaye lii xamu ci dara ndax jàngu ko topp toogu ko yëngu ko xamu ko mu mel ne waaw bu fekkente ne nit ki dafa xam fiq xam tawxid dañu tëkkal lu tax tawxidul maarifa moom tasawuf moo koy xamle ni ngay wéetale yàlla dëgg ak fa nga koy tegal ni nga koy yëge ak ni ngay sàmmoonteeg moom ak ni nga koy ragale mbiru biir la yoonu fiq néewu ci yoonu sharia nekku ci loolu nag ñi nga xam ne ñoo ci def taxassus mooy li ñuy wax spécialisation dañ cee spécialisé xam ngeen ne xam-xam yi islam yi yëpp benn loon bu daje ci jamono yonent bi ak jamono saxaaba yi lépp lañ xamoon waaye booba jógeguñu ba nit ñi kenn ku nekk tànn fa nga xam ne fa ngay téegale sa bopp def ko taxasus muy sa spécialité nga di ko ballalu di ko puus di ko yaatal di ko développé booba loolu amagul woon boo seetee ne lamiñu arab يوم ابن القيس زهير بن ابي سلمى نابغه فعشاء حارث بن حلفه كانوا ñëpp ba ñu jeex bi ñu wax arab ba yàq benn baat lu tax naxu yi li ñu tudde naxu dafa newoon ca biir te kenn génneegu ko maanaam baat yi ak istilaaxaat yi bi nga xamee nag ñu dul arab te bëgg a wax arab te dañu yàq bëgg a jàng arab xam ko moo tax ñu tëral xam-xamu naxu ngir bëgg leen koo mën a jàngal tudd lu ne ñu tuddee ko tudd nga xam ne bu ñu ko waxee nga xam ne lii moom waaye ñooñu jiitu lislaam koo ci ne sifatul mushabbaha du ko xam koo ci ne jaara mujura du ko xam koo ci ne xafad ak nasab du ko xam koo ci ne rafa du ko xam koo ci ne ismul fail du ko xam ba naax mu jeex xamuñu ci dara koo ci ne jumla du ko xam wala mubtada xabar dara xamuñu ko ci waaye nag séeréer arab day correct day wow koŋ ndax dañu ñetti kalamu na arab yeeta sali xatal diine ci noonu la meloon ci saxaaba yi lépp dañ koo dégg ci yonente bi gis ko mu di ko jëfee mu di leen ko wax di leen ko fàttali alxuraan di ci wàcc di ci wàccaat di ko répété ba mu sax ci seeni xol jaxasoog ñoom ñu jaxasoog moom saxaaba yi buru foog ne li ñu xamul lépp xam nañ ko déedéet benn circonstance yi ñu daan yi daan xew ba yonente bi di wax tekkiwuñ ko kon ñooñu mën a gën a dégg wax ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax xew-xew yi xew ba alquran aaya ji wàcc ñooñu ko gën a xam ndax ñoom ñoo ko fekkee tekkiwul nag ne saxaab yi bu nekk xam na xadis yëpp mais déet dañuy xam li keneen xam ne keneen xam ne duñ jógee nag di ko toppatoo di ko dagale nag fekk mu am téeméeri at ak ñaar duñ daataan dajale xadis sallallahu alayhi wa sallam jógee nag ba am téeméeri at ak ñaar ñu soo koy tàmbalee dajale ñi ko doon dajale fekk nañ loo xam ne yahudi yi ko ci dugal ko bëri yàq lislaam fekk nañ ci loo xam ne bu politique bi duggutee umawi yoone yëg abbas yoone yëg ñooñu ñoo ñoo tax ñu dugal ko ci ngir di dimbali ci ak di ko jox dëgg li nga xam ne secte yi maanaam diggante hérésie yi diggante mu'tazila rawandiya chiiya falasifa yi te ñëpp nga xam ne juróom-ñaar fukki xàjjalikoo ak ji ak li ñu topp la ñu xàjjalikoo kenn ku ci ne di woote ne yaa ngi ci dëkk di sos ay xaddis di ko dugal ci xaddis yi am itam saay saay yoo xam ne dara itteel lu ñu dul yàq rek ñuy sos ay xaddis di ko dugal ci xaddis yi booba kenn bindagul xaddis boo ñëwee ñu dala nekk li yonent bi saa sama nee na nangam am nag ak dëgër bopp ak dëjël boo xam ne ragaluñu dara benn waay benn mu xaddis woo ko di ko laaj xaddis kooku nitu politique la mu bëgg xaddis boo wane ne kii mu ànd la ni ci dëgg pour jullit ñu fekk ci ko mu ne ko mu sos xaddisam ne ko da ngay wax ne xaddis bi maa ngi ko dégg ci ci yonent bi saa waaye ne ko ah déedéet déedéet boo bëggee de ma wax ne ci ay salaa ko jëlee nga dégg nga gis waa ji rëy lu na waxal yonent bi li mu waxul ci prix boobu waaye nangu na ko waxal ay sa rëy lu war la abul abul abul kay na abdul aw ja téeméer mën ko wax suñ ko jàppee di ko rey dafa wan ne ne ñeenti junni xadis sos na ko yoo xam ne daganal na ca araamal na ca teera na ca xubta na ca def na ca lu nekk nga xam ne kon xadis bi gaa ñu jógee di ko bind daje na ñoo coono yu bari ak liggéey yu bari ak méthode yu bari waaye nag gaa ñu seen liggéey seen dogu dara mënu koo te dem nañ ba sell lépp bala la ko wax tëral ay charte yoo xam ne xadis bu ko matalul duñ ko jël te xadis bu ko matal moom mën nañoo waat ne xadis bi wér na ci sallallahu alayhi wa sallam la jóge kon mbiru xadis lu doy waar la waxuma ci wér gi ak ñàkk wér gi waaye xadis dana wér sañu wacc ko ndax ay xew-xew a taxoon xadis dana wér beneen xadis du wér di ko fàlli ko boo defee aalim bi xadis ba la jot jotul bii kee moom jot na bee jot bee kee bu mu jig rek la jot ñoom ñett ñëpp ñu wuute ci atte mën naa ci joxe ay misaal yu bare bare bare bare bari yu bari bari loolu lépp dal di indi ay lënt ak i lëj waaye nag li jafe mooy dégg dégg xadis dëgg mooy li nga xam ne mooy li jafe ndax daf si am xadis yoo xam ne ajuwul ci attey jaam yi ak xew-xew yi xew diggante yàlla ak jaam bi la kooku duñ ko abrogé maanaam duñ ko duñ ko nasaxal duñ ko folli xadis boo xam ne ci màggu suñu borom la ñuy xamal xadis boo xam ne ci mbiri yonante yi la ñuy xamal yooyu xadis moom duñ ko abrogé mukk du folli ko ndax